donc euh, et puis il faut Sénégalais yi xam ni aussi feebar bi am na maa ngi saluer aussi compréhension wu président bi c'est le président du, de tous les Sénégalais bu amee ñu ñaxtu rek mu bàyyi bu amee ñu ñaxtu mu bàyyi c'est pour vraiment euh, am ouverture le quoi loolu ouverture la mais il faut Sénégalais yi xam ni feebar bi am na normalement confinement total la waroon def deux semaines man pour affaire bi wàññeeku mais chaque jour affaire yaa ngi gën a yokk lépp bi mu bàyyee dugg bee génn bi affaire baa ngi gën a yokk donc sénégal yi ñoo war a yaraat seen bopp individuellement moytu daal moo gën mais xaalis bi moom ñun suñu waa kër rus duñ wax et puis man le ministre de la culture je suis contre li mu jël déplacé wu xam nga maam maam Ngor Diazaka dañ koy sikkar rek mais bu buñ ko dégloo il dit toujours la vérité je te jure man xaw ma këram bon menante wuñu mais li mu wax dëgg la ministre bi war woon déplacé wu di seeti kii que ce tegu ko fenn boo seetee benn nit war nga mën a seeti artistes yëpp te mënu ko mënul seeti musiciens yëpp donc def na erreur ci foofu amul amul conseil man j'ai contacté Koundoul ne ko la famille du Doudou Ndiaye Rose lan ko kundul mu ngi nekk ministre ministre de la culture fa nekk mu ne ma ab jotagunu benn instruction pour affaire yooyu buñ ko jotee naa la woo ba léegi contacté wu ma contacté tu ma aussi donc ñun dafa am yar bu ñu yar boo xam ni comme li may wax rek Bamba Fall bu yaakaaree dañuy ñëw bureau toog fa di ko léebal wala ñuy macro wala ñuy euh, di wax lu ko neex muy ree wala ñu toog ci buntu bureau yi di waxtaan ba ngoon kooku c'est pas la famille Doudou Ndiaye Rose ñun liggéey la ñu xam daan suñu doole saa yu ñu buggee tukki day tukki d'ailleurs sax moom am na beneen hommage bu ma defoon Bruxelles boole woon boole leen ci invité yi moom mu yónnee ma ay tur ne ma doonu buggoon ay invitation ma may ko cinq invitation moom góora ku ñuy wax góora ku ñuy wax euh, Martin Martin Ngone Ndiaye doomu aram jén bi ñoom ñëpp ma may leen cinq visa ñoom wéy may naa leen cinq visa ñu toog ba le jour Martin ñëw ak Gora ñëw la même jour fekk may balance bu ñu ñëwee dañ toog di ma xool ma leen di xool joxuñu ma dara bu fekkee bamu Fall jox na leen ko joxuñu ma ko fekk ma ci hôtelu cinq étoiles ma toog loger fa les artistes xalam de Carlotti Awadi ak la famille Doudou Ndiaye Rose ak yeneen groupe ma yóbbu loger leen ci hôtelu cinq étoiles El Hadj Papa Dieng ma nga fa woon euh, El Hadj mbay Mbaye nga fa woon ñoom ñëpp maa leen yóbbu woon ñoom ba nu fa ñëwee dañ fa ñëw toog di ma xool ma leen di xool ñu def seen vacances dem seen visa yooyu voyagé nañ ci te ma leen ko may Bamba Fall fayal naar ba xoromam am na aussi leneen loo xam ni euh, dinaa ko waxaat aussi ci moom waroon na bàyyi xel ci waa kër Doudou Ndiaye Rose c'est pas ay tuddee ko place du ay tuddee place c'est pas parce que doon ko fréquenter wala ñu dem këram di toog buntu këram di ko xaar et tout ça doon yor suñu liggéey bu ñu bëggee voyager suba suba suba suba mun naa jóge léegi après émission dem dagg billet voyager comme samay doom comme samay samay frères et sœurs donc amuñu problème boobu mais dañu jox suñu cër daal li ñu moom. Yo, yo.